waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla dañuy euh, julli si yenent bi sallallahu alayhi wa euh, rafetlu bu baax li nga xam ni moo ñu fi dajale tey muy euh, xaatim benn lëkkaloo boo xam ni dafa nar a dox diggante office national de formation professionnelle ak tuubaa ca kanam Touba ca kanam nag buñ ko waxee ñëpp xam nañ dayo bi nga xam ni am nañ ko waxuma sax biir Sénégal waaye si àdduna wërngal képp loolu moo bi président euh, Macky Sall si biir li nga ni plan d'urgence bi nga ni taxawal nañ ko mu jëm si xëyu ndaw ñi ñu wax war former si lu toll ndongo le office national de formation professionnelle jugee pour xool si yan anam la ñuy mën a taxawalee programme boobu loolu moo indi lëkkaloo bi ñu njëkk a def ñu def ko ak waa Touba ca kanam ndax bi ñu waxtaanee ak ñoom xam nañ ñi ni ñoom ñi ngi déjà si wàllu formation professionnelle ndax sëriñ yi nga xam ni ñoo yore daara yi ci biir Touba ñom commencé nañ leen tàggat pour que sëriñ yooyu ñu xam lépp lu jëm si wàllu àq ak yelleefu ndaw ñi waaye tam si lépp lu jëm si wàllum njàngale alxuraan bi ñuy jàngale waaye am na yeneen i façon formation yoo xam ni sëriñ yooyu soxla nañ ko te bu soobee yàlla ONFP dina si accompagner Touba ca kanam pour que ñu mën a formation yooyu waaye li gën am solo si lëkkaloo bi nga xam ne ñu ngi koy def dafa jëm si taalibe yi ndax xam nañ ni ndaw ñi jàng alxuraan ñu ëpp si ñoom bala ñuy wàcc alxuraan day fekk ñu am yenn at yi dootuñu am possibilité di dem daf ay licence wala daf ay master ba li nga xam ni moom la ñu bëgg mooy ndaw ñooñu nekk di jàng alxuraan ñu fekk leen si seen biir ay daara tëgg ay programme yoo xam ni dafay méngoo ak seen bëgg-bëgg ba nga xam ni bu ñuy wàcc di tari alxuraan day fekk ñu mën seen métier bopp njangal momu nak duñ ko yebal rek ci njangal métier ndax dafa am lo xamni lu am solo la mu jëm ci walum entrepreneuriat ndax buñu ñu xeyu ndaw ñi dafa am ben volet bo xamni ni walum formation waye dafa am itam lo xamni ni lu am solo la muy walum financement si misal buñu jëlé daro daara yu melni daara ko ki nga xamni ni ña nekk ñu bari dañuy yëngu ci walum mbay ak walum cham buñ leen tàggatee ba pare dinañu mën a am financement boo xam ni leen di permettre ñu yore seen ay jur wala ñu am seen tool di si liggéey pour mën a am loo xam ne moom la ñuy suturloo waaye itam mën si jàppale seen ay njaboot donc dañoo gëm ni ndongo yi nekk di jàng tubaab ak ñi nekk di jàng alxuraan ñoom ñëpp ñoo yem ñoo bokk ay yelleef ñoom ñëpp itam ñoo war a bokk même chance si li nga xam ni moom mooy wàllum donc loolu nag Euh, président Macky Sall daf ci joxe déjà ay orientation motax ñun en tant que institution ñu ne ñun itam dañuy ñëw teug programme bo xamni da fay jëm ci walu formation professionnelle si li nga xamni mom moy ndongo daara yi deug la sunu ministère de tutelle bi nga xamni moy ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion joxe na déjà ay orientation siwalu walu bobu te sax amna lo xamni tambali nañ ko waaye nag daf si am wàll boo xam ni ñun ñoo ko war a jouer ñun ñoo ko war a porter loolu moo indi ñu lëkkaloo ak Touba ca kanam bëgg a def liggéey boobu ni ñu lëkkaloowee ak Touba ca kanam itam comme ni ma ko waxee léegi dafay nekk programme boo xam ne pour Sénégal yépp la yàlla nag moo dogal ñu njëkk a waxtaan ak ñoom bëgg nag daf phase pilote bi foofu bu ko defee ñu xool nan lañ koy wasaare si biir Sénégal yépp waaw dafa am itam beneen mbir moo xam ni mooy wàllum xarala yi ñun ñëpp xam nañ ni tey jii boo jëlee wàllum xarala yi ak wàllum li ñuy wax numérique ak digital dafa nekk loo xam ni dafa méngoo ak jamono même njàngale alquran bi tey ñu koy def mën nañ ko daf jaarale ko ci wàllum numérique boobu jaarale ko ci wàllum xarala yooyu loolu nag daf ci am benn programme spécial boo xam ni commencé nañ ci waxtaan commencé nañ ko tëgg sax mu nekk lu ñuy wax alphabétisation numérique nga xam ni ndongo daara yi dañu leen jàngal ba nga xam ni bu ñu paree ñoom itam seen njàngum alxuraan walla sax mën nañu dam ba soppi xar kanam ba nga xam ni njàng bi nga xam ni ñu ngi koy njàng tey lu bari mën na jaar ci wàllu numérique waaye dafa nekk loo xam ni nag du ñun ONFP ñoo ñëw dugal ko ci daara yi dafa nekk ay waxtaan yu ñuy def ak ñu mel ni waa Touba ca kanam. ba ñu xam ni lii bu ñu ko defee dina nekk loo xam ni luy amal njëriñ njàngale bi la bu ko defee ñu doog ko dafandoo ñun ak ñoom waaye ay xalaat la ay études yoo xam ni ONFP def na ko ba gis que ni mën na amal njëriñ njàngale bi nga xam ni ñu ngi koy njàngale donc loolu dafa bokk benn pàcc la rek ci programme bi nga xam ni ñu ngi ko war a dugal waaye tey boo jëlee daara yi ni ñu wasaaroo ci biir Sénégal ak ni nga xam ni moom la état bi bëgg ñu def lu ñuy wax territorialisation de la formation professionnelle daara bu ne gox ba nga nekkee xam nañu ban secteur d'activité économique boo fa nekk bu dee wàllum bâtiment la danañ fa tàggat ndaw ñi ci wàllum bâtiment bu dee wàllum napp la bu dee wa dafa jëm ci wàllum napp wala mu jëm ci wàllum transformation céréale walla fruits et légumes ñu tàggat ndaw ñi ci wàllu boobu bu dee wàllum élevage ñu tàggat leen kon dafay nekk programme boo xam ni programme bu yaatu lay nekk pour Sénégal yépp yàlla na comme ni ma ko waxee léegi dogal ñu tàmbali ko ak waa Touba ca kanam ñu war ñoo gunge pour won ñu yoon bi nga xam ni moom la ñu war a jaar ak won ñi itam li nga xam ni moom mooy soxla daara si wàllu formation professionnelle boo ko defee ñu tàmbalee ko foofu doo ko mën a wasaare après si biir Sénégal yépp alhamdulilah ñoo ngi leen di bu baax te di leen ziyaare bu baax a baax di am mbégte boo lool ci teewaay bi ñu ngi fi teew te ànd ak waa Touba Ca Kanam gépp nag ci njiitul président bi ak vice président bi ak daanaka mbooleem waa kuréel gépp ñëw jëmmal si loo xam ne ñu koy waxtaane bu yàgg ba léegi ci wàllu formation Touba Ca Kanam ku ne xam na ne bi mu tàmbalee ba léegi dafa jox yitte lool wàllu formation ba sax daanaka daaw ba mi ngi ciy dafa yu am solo ba waaye nag dafa ko tàmbale ci former sëriñ daara yow tàmbale woon waaye am na programme formé dongo daara ci boppam formé jigéen ñi forme ñi nga xam ne ñëpp dañoo jàng ba seen jàng ak ci benn yow bi te mënuñu continuer seen jàng ñun ñëpp mooy programme daal boo xam ne bu complet la bi yàlla dogalee nag euh, directeur bi gis euh, suñu liggéey yàlla dogal mu tàllal ñu loxo ngir ñu ñëw jàppalante ak moom ci liggéey boobu ñu sawar ci loolu bu baax a baax te ñu ànd ak waa kuréel gépp ñëw ngir jëmmal loolu incha allah moo ñu tax te incha allah waaw bu dee euh, sëriñ daara yi moom dèjà ñu ngi ci

li ñuy wax turux tahfiz mooy naka la jàngal alxuraanul karim ba man a tegu ci yoon mën a am programme bu normal waaye itam ñu xam si sëñ daara yi ñoo xam ne bu ñuy jàng dongo daara yi bu ñuy jàngee ba jeexal dañuy xaw a âgé tuuti bu leen bàyyee ñu dem rek mën nañu bañ am benn qualification pour liggéey su boobaa loolu tamit day mel ne kon daara ji ko demoon dañu fa jëlee lépp loolu rek la ñu xalaat ne kon daanaka mën nga ne moo ci métier yëpp mën nañu ci formation daara yi lu mel ne menuisier lu mel ne maçon lu mel ne carrelage ak yooyu yëpp bu ñu ñëwee fii ci waxtaan ceeg euh, directeur proposé nañu yu bëree bëri yoo xam ne incha allah jàpp ne bu ñu ci waxtaanee programme ko bu ñu ko jëmbalee bépp sëñ daara boo xam ne euh, dong daara bu jàngate ba pare ba noppi boo yëree ci formation yi incha allah di mën a am moo xam ne di nga di nga mën a jàngal xam ba pare am métier mooy liggéey di teral say waajur di dundal sa bopp loolu daal mooy euh, taxawaay bi.